bugg nañu tey place de la nation ku fa ñëwul 14 heures ba quinze heures ah waaw di nga am ay difficultés pour accéder parce que sénégalais yi ils sont à ce que tey ñu ñëw fa woon monde entier ni Macky Sall troisième candidature am mënul nekk te du ñu nangu Macky Sall di galgal ay candidats te ay élections libres yu transparentes la ñu bëgg bi nga xamante ni ki ci war a bokk ku ne dina ci bokk que sénégalais yi ils sont à se battre pour ça. donc di jox dox daje ñépp et puis di wax ni les seules couleurs qui vaudront tey place de la nation mooy les couleurs de notre nation qui nous unissent tous toutes tous et tous mooy le vert le jaune et le rouge gis ngeen à travers les appels de tous les leaders du F24 ñoom ñépp ñëw nañ ci loolu mooy le vert le jaune et le rouge le le t-shirt de LD Debout, de République des Valeurs, de Frappe, Nitou, euh, de PASTEF, le fanion de, je ne sais pas, Agir, à toute autre organisation des éclipsés ou au profit de nos couleurs nationales, moi le vert, le jaune et le rouge. tey la nation ci loolu la ñuy woowee sénégalais mu am rassemblement bu am solo ñu duy ko ba mu fees ba mu dem booru place ci discipline ci pacifique bu ñu paree li ñuy def comme premier acte que bépp citoyen bi fa nekkoon booy dem fexe ba mu gobale yi fa newoon salte yi ñu fa fekk sax yi nga xam ñu ñu fexe ba bu ñuy ñibbi ñu jëlee ko ba mu set wecc mu doon un message fort qu'on lance au régime de Macky Sall et au monde entier pour ñu xam ni Sénégal fu mu newoon jógewu fa li tax ñu vitrine démocratie la ak fulla ak faydawu peuple sénégalais jógewu fi loolu la ñu war a wane tey place de la nation pour que Macky Sall ak ñi mu ànd ñu xam ni pendant qu'il est encore temps que dañu war a taxaw que ces points du F24 ci li mu gën a gaaw ñu tox ci ñu fexe ba lijjanti ko au plus vite bu soobee yàlla jaa ngeen jëf